baax yaay ji aussi am li mu war a am ba mun a xale bi mun a judd ci ci jàmm donc loolu projet bi def ko yemul foofu rek projet bi ak euh, alimentation scolaire moo ko tax a jog mais dafa am lu nekk autour parce que bu ñu joxee xale bi rek mu lekk te muy jàngee conditions yi baaxul xëy na dina am lu manqué projet bi na xool dafay réhabiliter école yi defar ay salle de classe euh, tabax ay latrines def ay points d'eau parce que loolu aussi ci environnement scolaire la bokk te dafa pour réussite xale bi donc projet bi liggéey ci loolu mais yemu fa projet bi aussi ñëw ne xale yi li ñuy lekk war nañ ko mën a jëlee ci seen gox yeeg goxaat yi loolu tamit day tax parent yi gën a sawar gën a suqali ko ci économie bi aussi au niveau des des localités ñu ne ay achats locaux la ñuy def di jënd xal parents yi li ñuy bay mais aussi di leen fexe ñu ñu tàmm di lekk li nga xamante ne mais seen meññeefu réew loolu tamit dafa am solo loolu dafay tax plus tard dafay développer suñu agriculture te dafay indi suffisance donc projet bi dafa nekk projet boo xamante ne fànn yu bari la laal mais li ci gën a am solo mooy ñu fexe ba xale bi su ñëwee lekkool bu mu xiif te na am jàng bu mucc ayib pour mu am jàng bu mucc ayib aussi projet bi ne xale yi en général ci première classe su école élémentaire dañuy am jafe-jafe ci lecture te xam nañ ne xale bi su liirul du mën a réussir njàngam parce que lecture bi mooy discipline fondamentale muy mathématique muy histoire muy lanet bala nga ko mën a jàng il faut nga mën a liir donc projet bi ne xale yi pour assurer leen toutes les conditions ñu mun a réussir ci seen jàng il faut que lecture boobu aussi ñu jàppale leen ci gouvernement bi mi ngi ciy def ministère éducation bi y a un programme important xam ngeen ko de lecture te saint yi bokk ci yàgg ci bokk mais teewul xale yooyu nga xam ne dañ leen euh, ciblé ci projetbi ñu leen di dimbale aussi ci seen i difficulté pour que ñu mën a lire su ko ñu gën a mën a réussir seen njàng te gis ngeen sànq résultat yi ñu partagé dafa joxe ne xale yooyu ci zone bi ñu ngi nekk 98 pour cent de taux de présence loolu mooy xale bi su xamee ne dafay ñëw école dina lekk dina am environnement bu baax dinañ ko jàppale ci ay jafe-jafeem parent bi bokk na ci li ñuy def parce que parents yi aussi ils sont impliqués a une forte mobilisation communautaire donc xale bi su amee condition yooyu yëpp day sawar a ñëw ci lekkool bi moo tax xale yi daan absenté xam nga fii c'est une zone de nomadisme souvent xale yi dañuy dem di gunge seen parent yi ci gerte geeg yooyu ci nag yi ci sàmm bi mais gis nañ ne fii xale yi léegi gën nañoo toog te gën nañu faale école bi di ñëw di jàng donc projet yu mel ni loolu la pour gën a téye xale yi ci l'école bi maintien mais aussi réussite amélioration des performances mooy maanaam ñu mën a réussir ci l'école bi mën a continuer seen jàng looloo taxoon jóg projet bi ñu am ci satisfaction bu mag di remercier le département d'état bu Amérique nga xam ne moo ko financé à travers le ministère de l' agriculture américain mais aussi di remercier contrepart mu nga xamante ne mooy partenaire d' exécution bi nga xamante ne fii tey moo ko mettre en oeuvre ak ànd ko nag ak service su état bi yëpp du ministère éducation rek ministère agriculture gis ngeen leen ci biir ministère de la santé gis ngeen leen ci biir ak yeneen ministère yi nga xamante ne am nañ ci rôle bu ñuy joué pour que projet bi mun a am